marhaban bikum dëkk bu sell ba tuubaa mbàkke jamono ji fa fees dell ak ay doomu haadama bàyyi ko sénégal ba bitim réew te màggal gi sax des na ñaari fan ndax ginnaaw suba la altine si du quotidien ne taaliba yi xaaruñ sax màggal gi ñëw fi mu toll nii ñuy wax ak yéen tuubaa fa rembat bay tuuru ak ay doomu aadama fees dell la def ndax ñëpp lenn la ñuy wax fi mu toll nii mooy ilaa tuubaa dem tuubaa màggali jaral na leen lu ne ak fu ñu mën a jaar nag fa ñuy dem ñoo xam ne saxaar gi lañ jël le soleil yéen kaay ne mbégte lañ am ñoom ñu dugg ci saxaar gi ndax ay at a ngi nii saxaar gi demul màggali ji ña ca des nag xoto lañ jël regard yéen kaay ne Touba kay fa mel ni tay la màggal ga ndax mbooloo mu bari ren nag mooy téeméer bi yoon ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñuy xamal màggal ak ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ca départ bañ ko yóbbu Gabon ay millions millions taalibe ñooy dem xat bu jot ga ren nag altine la ginnaaw suba ñeenti fan ci weeru septembre tombeek fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar 1445 hijri yéen kaay bi na màggal ak gën a mag bi gën a ngand bi gën dajale ay doomu aadama ci benn dëkk tribune yéen a kaay ne ku tedd ki Serigne Touba dëgg-dëgg xam na ndam ci kanam tubaab yi ba tax Serigne Ousmane Mbacke ci l'observateur na xalifa bi nag fa sàkku ci taalibe yi ñu respecté warmaal dëkk bu sell ba faxe tamit jëfee ndigalu lislaam yi bàyyi ay teram ak lépp lu ñuy bañ ca dëkk bu sell ba bu ko fa kenn def nag la mu def moom général Moussa Fall mooy fa dem Touba xalifa ba Serigne Mountakha Bassirou ko mu daal di ko yeggee matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci wàllu kaaraange ge yaaw seetal fukk ak juróom escadron Gabon gendarmerie ñoom lañ fa yóbbu te daaw fukk lañ fa yóbboon ba tax yéene kaay bi ne général Moussa Fall fa dalal xelu xalifa ba ci wàllu kaaraange ga ba pare fa ëlbatiku artu képp koo xam ne fa ngaa bëgg a sabote màggal gi du sotti de ndax kaaraange ga fañ ko yokk ak doole info yéene kaay ne ci barkeeg màggal gi nag tax na ñu ñu tëjoon kaso ñu bëri ñu ngi leen di bàyyi ngir ñu dem màggali ji yaw seetal Cheikh Baara Ndiaye ba nekk wal fajri bàyyi nañ ko dem na këram màggali ji Serigne Assane Mbacke tamit bàyyi nañ ko démb mu dem màggali ji fukk rëbës ga ak yeneen kaso yi ci Sénégal yéen kaay bi na société civile bi loolu la sàkk woon ci kilifay réew mi laas yéen kaay ne ñaar fukki doomu aadama yoo xam ne Pastef lañ bokk patriote yi te ñu tëjoon leen kaso ñoom it bàyyi nañ ñu génn dem màggali ji leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne sëriñ Hamsatu Mbàkke kàngam bu mag ci yoonu murit la lii yéen kaay moo ñu ko xamal laas yéen kaay na ko faay bañ nga fàtte sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke de xalifa bii fa wane boppam ci xilaafaam gi a yow fa ngay fa fee tabax université Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ba pare taxawal jàng nga xam ne magum murit la ko jàppee maanaam murit sadiq la moom Wade ba ñaanal leen l'évidence yéen kaay na ko yow it faa ci yokkal soxna Mimi moom it dem na ca màggal ga xalifa ba dalal na ko rafetlu taxawaayam ñeneen ñu seen taxawaay rafet dëgg ci yoonu murit moo ñu fi nekkoon xalifa bokkoon na ci Serigne Bara Cheikh Sidi Mokhtar ba ci tey Serigne Mountakha bés bi yéen kaay bi ne sëtu sëñ Touba nekk xalifa bu mag nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Ousmane Sonko mu nga ca diggante dund ak dee avocat bi ñoo waxaat ne nañ fi mu toll nii bu njiitiram Macky Sall état bi bàyyiwul Ousmane Sonko mu génn làmbaay fanaara ñaaw maanaam fay faatu yàlla tere vox populi moo ñu ko xamal les si ko yéen a kaay na alerte rouge lañ def ne Sonko fi mu toll nii wér-gu-yaramam fa gàlla guuse fa garaaw ba jéggi dayo ba tax ñoom fa ñoo jaaxle ayow fi mu wax fanweeri a ngi nii Sonko mi ngi ci geraw de la fin lekku constitution bi ne nañ ci wax balaa làmbaayee ñaaw source ay yéen a kaay dëggal ko ne avocat yi sonko yi kay fa ñoo ndax bakkanam ma ca xottu gerte turbine yéen a dëggal ko ne avocat yi fa ñoo xoo njiit mu bàyyi sonko mu génn kaso balaa réccoo weesu vox populi ne lu tolloog téeméer ci ay fajkat docteur nañ gisee Ousmane Sonko wér-géeramam fa mu tax na koy artu ne fi toll ni mi ngi ci virage bu mujj bi buñ ci waxut mu dakkal grève de la faim a yéen a ne faa leen di wax xibaar boo xam ne yéen ñëpp yëgu leen ko Ousmane Sonko dakkal na grève de la bi xiifal ba mu nekkaloon fi tolloon na foo xam ne nag su ko dakkalutoon rek fay faatu kon yor yor yéen a kaay nee na Sonko dakkal na grève de la ba wal fajir yéen kaay ne docteur yi médecins yi ñoom fa ñoo mer ndax fa ñoo wax ne hôpital yi daal waratuñ koo def fi mu mu nekk daluwaaye ay prisonniers ñu tëj kaso ñu ñëw di def grève de la ci la njiit réew Macky Sall di wax kan mooy candidat Benno Bokk Yaakaar 2024 le quotidien yéen a kaay moo ñu ko xamal samedi 9 septembre bii di ñëw ci la njiit réew Macky Sall di toj kaas yi wax kim tànn waaye laata loolu nag fay xamal remaniement coppite ci gouvernement bi diggante état ak société civile bi fi mu toll nii neexoo wuñ de enquête yéen a kaay fa ñoo xamal ne état bi daal fa xam ñu bëri fa ñoo wax ne ñu nekk société civile bi ay politiciens lañ waa société civile bi fañ lépp luñ gis lu loo xam ci réew mi fañ koy ñaawlu la mu ñaawlu nekk gël tàppe tëj bi nga xam ne gaañu fañ koo tëj fermé ko nee na loolu garaaw la léegi askan wa fa doon fajoo nag fu ñu jëm ña nar a dem ca kaso ga mooy ña jiite entreprise bi nga xam ne moo fi tabaxoon kër gi nga xam ne fa fee nërmali woon daanu ba xam ñu fa faatu woon libération nee na teg nañ loxo njiital entreprise ba man ma teg loxo l'observateur fekk fa xibaar bu yéeme yaaw seetal benn waay daal fa tuumaal baayam ne fa bëggoon a tëddee jabaram aay yéene bi na fa leen a bett ci situation yu xaw a tey xel daal mu njort ne baayam daal la mu bëggoon mooy yegg ci kaw jabaram sa jabaru doom Sénégal ak fay xëy rek sol dàllam jóg di dox dem ndax tooxi doona yu doy waar yi nga xam ne foo nga ko fiy dégg